you الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة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 di weeru sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni dafa nekk rek un viatique intemporel de tous les temps yàlla ci mbaaxam mu wàccee ko ci suñu kawnu bi pour mu leeral ko te la suñu maam Seydi El Hadj Malick waxoon ni bu leram projeté wul won ci kawnu bi rek kon ñun ñëpp ñu dess ci lëndëm ñun ñëpp ñu dess ci alkande law lam yaluh fi fada'il kawni tal'atuhu tabqa al bariyatu fi dhalma'i allah kon nak ñi ngi ciy ndokkeel ummal islamiyya bi yépp waye itam di ñaan yal na yàlla tëbb ñu ci leeram yal na yàlla taas ñu ci barkem yal na yàlla tànq ñu ci jikkom xamna di di ci war ak yeen ci émission bi ngeen tuddé Carrefour du Savoir jamono bu nek ñuy jangat ay tem waye surtout diko jëm di contextualiser ak ki jamono bi ñi dundu mu melni fan yi mom kep ko wax ta waxo ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam yakarna sa wax du safe ndax mo depok tabiatul hal waye tam moy muqtadal hal mu melni nak ci waxtaan yi ñu war a waxtaan pour gàttandoo ko gàmm gi dañu am initiative def benn jaw la ci burdatul madian maanaam burdatul madih bi nga xam ni al imaamul busri moo ko taalif waaye seydil haj malik moo initié fukki fan yi jiitu ci gàmm chaque jour ñu jang burdu ren ñu bëgg a ak yeen ci burdu bobu ak limu mu ëmb ci ay buntu ak limu ëmb ci ay foset ñu tënk ci kemtalaay li ñu temps bi may ba yenen édition inshallah allah ñu tankat ci burdu ya te yaakaar naa at bu jot mën nañ ci jël ay bat di ko barkeeloo te du jeex d'abord ci premier thème bi dinañ jéem a def présentation ci téere bi ñuy wax burdatul madih waaye dinañ jéem a itam ki nga ni moo ko taalif te mooy busri ndax na sama classe ki ñuy dégg burdu burdu te xamuñu kan moko talif. أنت صح أمنا كم ما سواه نيم أخ برد موم دعنا سيد الحاج مالك ما هو كتاليف ماني كديدت سلمان دف ديغور غو أم أنتهت كي واللو واللو خم خم ديغور كو أم ouverture te bëgg mbolem borom xam xam yi xam nga loolu lu jara lu jara baye xel la gis nga imaamul Busri biñ ñu leen di waje a présenté bu dee ci cadre tariqa as mok mook Seydi El malik bokku ñu tariqa waye modo daf ko admirer parce que yéen ñep xam ngeen ni al imam al mursi moy serignu imam al Busri moko jàngal moko tarbiya moko defal tabarakallah yu bare même ci cadre madhab sax ci wàllu diine ñii tënku ci Malik ñii ci Shafii ñii ñii ci Hanbal ñii ci Abu Hanifa xam nga Seydil Hadj Malik bi initié burdu tey moom Maliki la waaye kii ñuy tuddee Busri bi ñuy waxtaanee moom Shafii la kon dafay wane ni turux yi du gàllankoor aqida bi benn la muy aqida islamiya moo tax ci cadre boobu la ñu doon préciser ci commencement bi avant ñuy dugg ci téere bi téere bi nag ñu ngi ko tuddee alkawaakibu durriya fi madxi xayril bariya noonu la ñu tuddee téere bi dinañu expliquer lan moo tax ñu tuddee ko burdu bu delloo ci muallif bi ko taalif ñu koy wax al imaamul busri moom mi ngi doon dund ci epogu di dix-septième siècle te mooy fukkeelu xarn ak juróom-ñaar ndax moom mi ngi juddu année 608 ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam calendrier mais bu ñu delloo ci calendrier chrétien mi ngi tolloog 1213 ci miladi kon ci dix-septième siècle ci calendrier chrétien ci la juddu waaye nekk ñetteelu xarnu ci calendrier musulman imaamul busri boobu mi ngi juddoo ci capitale bu ñuy wax Qahira tey ñu miin ko ci Caire mooy première capital bu bu Égypte fa la juddoo bi mu juddoo foofu it tabaarakallahu ma nga yaroo ca Busayri nekk dëkk cosaanam ndax moom d'abord mi ngi tudd Muhammad ibnu Saïd al Busayri Busayri bi kinaaya la maanaa dañ ko dàkkante la dëkk ba nga xam ni fa la fa la yaroo fa la askanam dëkk moo tax ñu bare léegi dem na ba tur wa réer ñu naan imaamul busri fekk busayri la la la cosaanoo moo tax waaye itam fa lañ ko yare mu nekk góor gu teel a wattu alquran ci age bu teel bi mu wattoo alquran it dem na jàngi fànni xam-xam yi ba egg ci mustawaa bu kawe ci la dem nak ci jami'atul qahira da moy université Caire mi ngi doon jànge ci ben faculté bu ñuy tuddé faculté de lettres mu don jàng walu littérature arabe nek domaine bo xamni da ko yag a bëgg def ci lu nek waye ci kulliya bobu da moy kulliyatul adab xam ni al adabul arabi lañ fay lañ fay jàng moom la spécialisé woon bi muy nekk ci université bu Caire bi jógee ci loolu ci la commencé nag di bind waaye début taalifam commencé wul ci way yonent bi mais da daan da daan way rek comme di ngeen ko xamee ci aada bi muy nekk ndaw di way borom euh, xaalis yi di way star yi comme ni ko alquran waxee wa shuara yatbaauhumul gaawun yooyu la toppoon di ko way waaye bi mu demee ba jëm mag nag ci la commencé di way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way na xasida yu bare avant muy way burd parce que way na xasida bu mel ne hamziya تماي كيف ترقى رقيك الأنبياء ويكي ينتي بي كي فاسون وي ييمي وينا قصيدة بو خمني باقي بو يمل منكو كومانسي كي بمدح المصطفى تحيا القلوب وتختفر القطايا والذنوب لولي تم إمام البصري موكو بنت وين يتم بين حائيه delloo ko ci ay tawasulaat jaare ko ci yàlla terminé ci yonent bi ma ngi koy wax naan yaa man qadaa'inu mulkihi mamlu'atun karaman wa baabu ataa'ihi maftuuxu tabaarakallaahu yooyu yëpp way na ko bi mu jógee ci loolu nag bokk na ci sabab bi tax mu way burd mooy dafa feebaroon feebar bu metti wante nag version yi bare na ci ñii nee nañ judaam moo ko daloon ñii di baras moo ko daloon genre feebaru gaana walla wala lèpre waaye l'essentiel dafa feebaroon bi mu feebaree mu dem ba naagu ni feebaram bi dootu ci wér ci la ni man dama am yéene way yonent bi sallallahu alayhi wa waaye may yéene ci biir way wi su ma ko wayee même bu ma faatoo bu yonent bi yégee way bi ma ko way xëy na mën nañ dëgg ci loolu pour bu ëllëgee mu ràmm ma pour yàlla man ma yërëm ndekalam yéene woon ca way wa du loolu kese la ciy am waaye way bi dina wër àdduna waaye dina jël turam itam wërale ko ci àdduna bi ci noonu ci la waye burdatul madih commencé ko ci amin tadakkuri jiraanin bi di salami ma dama damaan jara min muqlatin bidami di way di way di way ba téere bi jeex bi mu wayee burdu ba pare nag ci li xikaayaat yi nettali toog na itam guddi gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa muy way burdu ci kanamam ba yegsi ci fa mablaqul ilmi fiihi annahu basharun waaye xaal bi jàpp ko limi am qari'a chanria yeb manatul egale bayti bi yenent bi dar kay gaganti ci genti gi ne ko wa annahu khayru xalqillaahi kullihimi ñu ni moo tax ba mu yewo rek tabarakallahu ci la wér bi mu wéré nak waxul kenn dara waye amna ñu xamone ni febar na ba naagu ci febar bi ñi dëkk ak mom damon nañ ba amatuñ yaakar ci mom waaye gis nañ ni góor gi wér na benn bis muy doxantu ci mbeddi masra yi benn góor intercepté ko ni ko jox ma way wi nga def ci yonent bi mu ne ko man mu ne ko way wi nga def ci yonent bi jox ma ko ndeke am na keneen ku yàlla yëgal nii am na ku way yonent bi ci guddi gi ba ci barke yonent bi yàlla wéral na feebar bi moo tax mag ñi ni burdu bur àlla maanaam dafay dindi ay jàngoro loolu bokk na ci yi ñu nettali burdu boobu nag bi ko imaamul busri wayee dafa am yu bari yum ko permettre parce que daanaka moo jaay turam moo jaay image am bu doon ci marketing la ñuy wax damay wax ni way boobu moo jaay projet am ba àdduna xam ko xam nga am na yu ñu daan organiser ca jamono yu jëkk ya loolu sax avant l'islam la ja shu'ara ul jahiliya daan am benn prix yoo xam ni ñi daq woy dañ leen daan décorer ci shu'ara ul jahiliya ba bi lislaam ñëwee sax ci époque yonent bi ci al asru dahabi lil islam ñëpp d'accordoon nañ ni Kaab ibnu Zuhayr mooy prince des poètes parce que moo daan woyeel yonent bi mag Hassan ibnu Thabit waaye depuis keroog bi mu woyee baanat suaadu fa qalbiya yowma matbuulu mu tayyamun ithraha lam yufda makbuulu ba egg ca inna rasula la sayfun yustadaau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu yonent bi summi burdam jox ko ko te burdu ba Muawiya ibnu abi Sufyaan ñaan nag ko mu gàntal mu jël lu tal ni burdam jox ko koo xam ne nee na loon na deretam ndax woy bu mu ko woy woy wa touché xolu yonent bi yonent bi summi burdam jox ko ko moo sax ci mag ñi ci tooñu ci tooñu mag ñi ci kaf ñu wax ni boobu xasida boobu warul woon tudd burd

ci mboolem shuara yi topp ginnaawam parce que moom itam mujj na nekk prince des poètes xam ni kenn contestétu ko ci charx ak xar bu yépp moom euh, góor gi imaamul busri loolu dafa def asar sax ci ci ci ñi woy ginnaawam boo xoolee mbind ku mel ni Seydil Hajj Malik xoolal lu mel ni miimiya da ngay gis trace yi yi day feeñ ci biir miimiya ba ci boo xoolee hamziya sëriñ Babacar si dangay gis trace yi parce que dafa mujj nekk source d'inspiration ci mboolem mag ñi ndax téere bi dafa am lu ci dugg loolu dinañ ci ñëw moo tax bi mu paree ci burdu boobu ak yeneen mu àllafaat yi mu def ba tabarakallahu mu faatu 695 hijri tolloog 1295 miladi dund 87 ans yàlla dogal mu faatu moom góor gi ca madinatul iskandar te mooy deuxième ville bu bu Égypte deuxième capitale bu Égypte ndeysaan fa la góor gi faatoo bi mu faatoo nag nga gis village boobu mu faatoo nga xam ni nit yàlla bu ne jaar na fa ابن عطاء إلا بيني دك برم برم برم حكم يهيم يوي فلا غرقتت جال إسكندر مغني سردن كدان فيزيت دعنا سيد الحج مالك بيمجوجة بيت الله الحرام جارنا إسكندر سخدون فيزيت لين يوحنا دنيو دنيو الله كبيبلة تكبر مي خالد دقلة ولا دقلة مي فافا إمام البصري مارك نفا أم برانتم غري الله برد دجال نج دجال أي ay ouvrage am ay bindam def ko benn diwaan mooy li ngeen tuddee recueil loolu benn góor bu ñuy wax Muhammad Sayid Kaylaani moo ko dajale ca Qahira loolu yàggul 1955 la ko la ko def te moo tolloog 1314 ci hijri mu nekkoon tabaarakallaahu euh, euh, ouvrage yu am solo wax na sànq ni bokk na ci li taxoon mu taalif burdu mooy yaramam moo doon moo feebaroon mu bëgg a def tawassul ci yonent bi ngir yàlla ñu man ko ràmm waaye itam am na yeneen version yu ci ñëw parce que am na ñu wax ni li tax mu taalif burdu dafa amoon benn góor guñ daan wax Bahauddin nekkoon wazirul malik maliku zahir kooku sax bokk na d'ailleurs ci ñi njëkk a euh, dirasawat bindu imaamul busri surtout burd daan ko jël di ko barkeeloo waaye bu ko daan jàng da daan toroxlu du sol mbaxane du ñemee toog day taxaw di ko jàng bu njabotam febaré mu génné burdu and ak ñom jang ko buñ ko jangé wër gor gogo tok ben bis rek am ku gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu renvoyé ko ci gor gi ku ñi wax ibn euh, bun al fariqi gënt gis yonent bi fekk mom mu amé febaru febaru wanent mu ni ko demal ci euh, Bahauddin mu jox la burdu mu xey laaj ko burdu bi mu ne ko man yoruma burdu parce que da japp ni manto la kay wax waye bi mu ba khalatat la ni ko ah man da amna lumay faral di jang te bu sri bindu ko bu sama njabot febaré mom la len di jangal pour ñu wër xana ñu lu ci ñu jang ko naka lañ and jang burdu bobu mom gor gi tabarakallah mu mu wër ci wanent bi kon loolu wane ni téré bu am barké la mais téré bi nak def di œuvre boo xam ni dafa cher ci imaamul Busri xam na dama dégg ci Serigne Cheikh mu wax ni créateur yëpp dafa am lu leen di dal mooy ci œuvre d'art yi ñu defar dina ci am benn œuvre boo xam ni seen xariixa mënatu ko inventé xam nga poème art la art boobu nag boo koy def dafa am inspiration yu lay dikkal léeg-léeg sa xariixa yëngu nga am loo yëg bind ko mais bu sa xar yaxa bañee loo forcé forcé dootoo ko man mu ni busri jéemaat na sax bindaat lu mel ni burdu mais xar yaxam àttanatu ko parce que mooy œuvre de sa vie moom burdu loolu da ko dal moo tax tabaarakallaahu jéemaat na ko sax waaye mënu ko mënatu ko mënatu ko def ndax la ca nekk téere la bu yàlla barkeel nag bi mu fi jógee fukki boroom xam-xam ak juróom-ñett sarxaa nañ burdu al imaam al bajuri bi ngeen miin ca jaamiatul azhar ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen fukki boroom xam-xam ak ak juróom-ñett bind fukki livre ak juróom-ñett pour sharha burd ci biir yooyu am ñeent ñeent ñu def taxmis te mooy def xasida yoo xam ne dañuy def ñeenti bayt jël benn bayt ci burd dugal ci defaat ñeenti bayt jël juróomeel bi ci burd gis nañ ci ku mel ni Cheikh Sukayrij def na ko ku mel ni Imam Khalifa Niass def na ko loolu day wone ni téré la bo xamni lima waxon sank source d'inspiration la ci mbooleem borom xam-xam yi kon tabarakallah lolou moy présentation burdu moy présentation kiko kiko bind muy imaamul Busiri xam naa di len jox rendez-vous rek ki premier buntu burdatul madih inshallah ñi def ci ben jawla bu gàtt ñi ngi len di jox rendez-vous ci waxtan bobu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته